mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle fooy fanaan mbër gàlle yaay mbër gàlle yaay mbër gàlle fooy fanaan mais Balla Gaye Boy Niang lan moo tax nangoo ci wax non comme loo gisul mënoo ko analyser. mais ñoom xanaa gisoo leen seen état de forme. non yàggu maa ñëw dama nekkoon dëkk bu quoi loolu tax gisuma seen état de forme fu mu nekk nii. lan nga xam ci Balla lu ma xam ci Balla Gaye bërekat ah. la ndaanaan la. waaw ah. bërekat la ndaanaan la. waaw. la. Ah. passe partout lan yow comme que maanaam comme côté boo ko duggee mën ngeen dem. waaw comme ba ku ko analyser erreur bi da ngeen def erreur. mais rek yow lan nga kii ci Balla nga ni passe partout la. waaw passe ko xamee quoi lu mu jot a jàng ci moom. waaw. combat am ak Boy Niang yeneen combat yu jàll ban mooy gën a metti. non bii foogu moom foogu moom miti. bii mooy gën a yomb quoi. mooy gën a yomb. waaw non dama xam bii mooy gën a yomb ko moo tax nga ne bii mooy ñaari bërekat lañ quoi. Mhm. waaw kenn ku ne ay technicien la ñuy joué quoi. ok waaw lan nga xam ci Boy mhm. lu ma ci jot a xam ci Boy de tuuti la rek. Mhm. waaw. ok may eh, lan Boy Niang ci cadre bëre. Boy Niang. Boy Niang comme rocceeku bëre lay rocceeku dugal lay yomb def. waaw ah, comme yooyu la rocceeku comme dëbb mm-hmm. waaw mm-hmm. comme saara ëñ mm-hmm. tànk bi motali ko loolu la yomb di liggéey quoi waaw kan moo ci gën a sûr bëre kan moo ci gën a ñor bëre non Balla moo gën a ñor bëre waaw te moo gën a assuré bëre waaw waaw Boy la gën a mëne Boy Niang mm. ku ko patam patami la yomb gën a mëne quoi mm. comme Balla Gaye patam patamee ko waaw. combat euh, ñoom ñaar euh, euh, wax nga sànq avantage kan moo ci dàq xeex Balla Gaye Boy Niang ku ci xeex. ku njëkk a rek mën nga réeral keneen ki. mën nga réeral keneen ñoom ñaar kan moo comme li ñu li kiiwee ñoom ñaar li ñu signatiré. dégg nañ boo ñaa nee ko mala la doole gis nañ Balla Gaye na ko li nga wax bu ci changé virgule la ñuy mbapat te ñoom ñaar bu ñu mbapatoon kan moo ci ëpp avantage buñ mbapatoon ku ci ëpp avantage non buñ moom du yàgg du yàgg waaw du yàgg buñ mbapatee du yàgg ah. même buñ dóorantee ci mbapat lay mujj ok waaw kon combat mënul yàgg déedéet du yàgg ah. waaw du dem prolongation daal exemple di def prolongation. waaw waaw. janvier. le premier janvier. waaw mooy weer bii di ñëw. mooy weer bii waa di ñëw. presque jeex na ba amee moom du yàgg. su amee lan moo tax nga ne du yàgg. dama xam ne bu amee du yàgg daal. waaw bu amee daal du ko. foogoo ko foogoo ko déedéet gis nga mooy ñi nga xam te ni charlatan yi ñuy génn di wax ci combat bi ay combat bi du am combat bi nangam nan nga gisee mooy sëriñ ñi nga xam te ni léegi ñoom ñu ngi fépp dañuy wax ay li ñuy wax yëpp euh, du méngoo ak li ñuy nan nga gisee sëriñ yi génn di wax rek peut-être kenn ku ne dangaa toog sa ruq rek bëgg comme bëgg sa kii bi yokku rek nit comme bëgg sa client yokku ah. waaw Mm, waaw comme maanam nga nga wax ngay wax di kii ci média bi waaw daa man comme nit bu mu sañoon daal bu mu nekkoon ci côté yooyu kenn ku ne bu teewoon def lu nekk ci boppam bi mm. loo fabriqué yàlla mun na la cee dimbale mu sotti mm. waaw ndax comme boo nekkee di kontar ki wala di wax ci naka su noonu ngeen di defante kii di def kii kii di gas kii di suul beneen njàmbaar du ci feeñ ko waaw. Uh, waa CNG yaa ngi leen di dégg sa xarit yi. waa CNG comme. ba tey da nga leen a mere. Ah. Ah. kay to indi nañ loi bu xaw a doyati waar fu mu nekk nii. ban waaw ban loi waaw. cinq doo dugal butéel. doo dugal nit. Ah. dafa jaxasoo lamb ji daa gën jaxasoo kay. ah fu mu nekk nii jaxasoo na de. Ah. waaw parce que doo mën a dugal nit ci biir lamb ji. Ah. doo mën a dugal butéel. non lamb ji ci biir kii bi. géew bi waaw. Hmm. xam nga ne comme buñ la joxe ay butéel nee bii fii nga koy defee. Hmm. léegi pourquoi ça léegi ñi ñëw ñu interdit loolu noo koy doxalee. loolu moo bokk na ci caaci làmb ji ah. loolu mooy caaj bi loolu moo koy safal uh-huh. léegi nag bu ñu indee affaire boobu léegi ñu inter interdit loolu kon noo ko bëgg doxalee mm. waaw xam nga lan lañ waroon def ah. comme exemple tey kii bi ñëwee ñu may kii trois minutes kooku def génn keneen ki ñëw mm-hmm. def génn mm-hmm. waaw mm-hmm. comme exemple boobu ndaa ñi ne ñi ne comme maanaam li nga def maanaam dara du ci dugg imagine loolu waaw mais làmb dañoo war a xam nag du sarax sarax moo yor calme yooyu xam nga lool ndaa làmb seytaane la àndal lu waral loolu nga toog fële nit ñi di commentaire lu leen wóorul voilà loolu da affaire du seytaane kon nag bu walaw seytaane boo ko xëccee ba mu ñëw ci biir baal ki mu àggale rek kon ah, soriwu ko de lam kenn kaa ngi commentaire ci loo xamante ni wóoru ko kay waaw kon bu ñëwee lan moo waral loolu du affaire butéel yi affaire ngurmangaa yi mm, mm. kon doo ko bàyyi mu utiliser lu tax mu indi ko ni nga ko interdé koog moom mm. kon loolu doy na waar waaw ah. loolu doy na waar te boo demee àll bi ñooñ ñooy upp mbër ñooñ ñoo upp te doo gis ñu xeex doo gis ñu xuloo ah imaginer loolu nag kon boo ñëwee fii ñoom war nañ mën a def calmant mm. pour man dañ ñii di def loolu yëpp dañoo jaarul ci comme compétir à àll ba ndax buñ jaaroon ci lool duñu faale lii mm. waaw. digganteeg tey. digganteeg. arbitre yi. Mm. naka. ah arbitre ndax ñoo yàq sa waaw niroo na ko ah. bu dañee xam naa mënul dañ 100 pour cent. waaw ba tey am na loo leen jàppal. bokk na ci de waaw. nag. non waaw mun naa leen baal ni ci ñàkk a pexe sax hmm. no problème. no problème waaw. Uh-huh. léegi yow promoteur bi tëgg sa combat ñaar gëj ngeen a déggante. promoteur bi hmm. Bac moo yor numéro am. Bac moom lay déggantil Bac. ah yéen ñaar déggante woo leen. déedéet man yor mu numéro. promoteur bi ne ko mu gaaw rek xam ne yaram sama yaram dafa tàng quoi ah. waaw gisoo bu may dem àll nii mar làmb sax moo tax may dem làmb di nii di compétir ndax sama loxo bi moo doon métti moo koy bëreeg moom di compétir ak moom ngir comme maanaam compétir bi moo ma ci neex noonu rek waaw ah. waaw loolu moo ma ci dugal ndax métti na lool. waaw nu mu gën a gaawee. waaw Saalum Saalum doy ah. ci ñàkk pexe ah. waaw. ñàkk pexe doy na. <laughs> amoon mbégte contentement pour yéen doon suivre sur Kewel Info ah. zone technique lañ dalaloon sama série mais zone technique mi xam naa dama koy fase rek ndax zoo xamul fu muy taxaw zoo est-ce que du ma la fase rek. ah mu fasee rek nga di jantal mu keneen mu fas ma. ah damaa xam ne kat yow moom mooy loolu. mooy loolu ci naka kii rek. ci naka ñu gérer rek ah, seen génération bi daa xaw a métti de. ndax xam naa ne comme bu doon ndab bu ñuy lekk la de bu boo ya boo yàggee da nga dee. ndax lan nga ah. xiif moo lay rey. lan la xiif di rey. ah ça fait longtemps. <laughs> Ah. laa gis laa gis waaw. loolu mooy jafe-jafe. waaw waaw. dàggatoo baj doo wax aja looy dàggatoo eh? baj sa xarit la de waaw baj sa xarit la de ah waaw waaw ah, man tamit sama xarit la waaw ah. waaw hmm. baj kaay wax <laughs> kii xoolal bi lay réere eh? wa waaw maa ngi nuyu waa Kër Mbaye yëpp tout le monde cat ba cat ay ñoom boobaye ñoom ngóor ñoom ceer ñoom badegay ay ñoom kii euh, Mor ay ñoom kii Samsu tout le monde maa ngi leen di woo di ñoom Fara Njaay pharmacie di woo waa Njagañaaw di woo waa Sangaay Suusung daal Moussa Ngom ay Moussa Sarr yooyu yëpp Mbaye Thiaw yi nii ne tout le monde den ay ñoom Jooj Sañ eh, Ousseynou Matar Ngaxa yiin fop Ablaye Culi yiin Mamadi Ndaɓe yiin Pape Diouf yiin tout daal di woo du nuyu ay ñoom Adama Joola yooyu ay ñoom kii Malick Joola Vieux Ngañcaam ay ñoom góore yooyu yëpp Dambeng Dambeng Ousmane da ñoom Daouda mbay ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant quoi waaw ak kan ay ñoom ngañ di nuyu sin waa Ikri Kër Mbaye Fall.